national kooku du jàmbur ci kon moom jàmm lañ ko yéene waaye nag dafa am lu mu laaj li mu laaj mooy lii ma ko wax li ko dese ci ci diir nag bareetul libéré xale yi libéré Ousmane Sonko bàyyi ko mu participer ñëpp participer nga bañ fee téye nit ay parrainage ak yu kenn xamul indi jàmm ak salaam au sa jeunesse jubboog ñoom booy génn sénégalais ku gaaw a fàtte la sax ak ku mën a baale lañ ñun ñun dañuy woyof xol dañuy wax rek voilà ku ko defee mu génn voilà ne ci retraite am yoon amay activité en tout cas euh, loolu daal laa koy laa yaakaar nga ne fit front pour euh, élection yi mën a ubbeeku ñëpp bokk ci mu itam élection yu leer est-ce que yaakaar nga ne mun na porter combat wu Ousmane Sonko génn ci kaso bi wala bokk ci élection yi parce que dafa mel ni fi mu ne les carottes sont d'être cuites le 12 la ñu koy àtte ca tribunal bu Dakar euh, radiation wam mais le 11 dañuy tëj parrainage yi ñu bëri jàpp ne ba yey na mbuus pour Ousmane Sonko. non non non parce que euh, fàttali ko dañu ne mën ngaa déposer ce dossier ba le 26. au contraire man dama trouvé que je trouve mais mais on ay peut-être euh, yeneen yoon yoo xam ni agent judiciaire mën na ko sumb wala ay avocat ah, waaw waaw bu dee damay mais damay jàpp damay jàpp ne lépp mën naa génn le 26 voilà mën naa jàpp ne vu l'urgence Euh, magistrature bi ak justice bi dina accéléré bu ñu ne woon kay dañuy àtte le vingt sept <laughs> ci booba bu booba nga ne bon euh, donc man am na optimisme en tout cas di woo euh, les magistrats ñu appliquer le droit loolu laa jàpp ñu xam ne bu dee ragal voilà fi la moom dans deux mois et quelques <laughs> dem na dootul président de la république donc li li li li chinois naan tigre en papier mm. <laughs> xaw na ko nuru fi ñu toll nii donc dañ wax le droit mm. tegaat démocratie bi ci yoon man fondamentalement démocrate la loolu laa gëm gëwuma beneen régime démocratie laa donc euh, looloo war a am ci démocratie lañ fale woon Macky Sall na bàyyi ku Sénégalais yi bëgg a tànn buñ ne Aminata Touré la ñu fal ko buñ ne keneen la mu ñu mu koo nga falu voilà loo loo loolay démocratie nga nangu ko kooku bu liggéeyee buñ kontaanul ca la mu liggéey mais ñu dindi ko indi keneen bu ñu kontaanee ñu falaat ko bu defee deux mandats bu jeex keneen ñëwaat. Hmm. mais noonu la noonu la démocratie di tëddee euh, te loolu moo ko indi moom euh, à la tête de l'état du Sénégal ba am am fi deux en tout cas képp kuy ku ko yéene jàmm conseil yooyu nga koy jox. da nga jàpp ne dañoo bañ nga gisanteeg Ousmane Sonko keroog seeti nga ko antuwul est-ce que amaat nga possibilité. mais dinaa bind le juge juge bi dama koy bind ne ko dama soxla permis di ko wax nag moo ko bindee na ma tontu. su ma dul jox permis mu wax ma lu tax du ma jox permis mais lu tax kenn du du ma ko seet pour permis bi nga yoroon ku la ko jox. mais ñoom ñoo ma ko jox bien sûr te pourtant nag nangu woon nañ nangu woon nañ ma de nangu woon seet ko ba jox ma numéro de passage xam naa nag ba ñu wooyee ci kaw lañ leen ne loolu du am. pour yow lu tax ñu bañ nga gisanteeg Sonko ñoom nga ñoom nga fay sax amul sax benn sens ça n'a pas am na ci droit am na droit recevoir ku mu recevoir. donc yooyu yëpp vraiment yu yu yu yu sew la daal yoo xam ne hmm. mën naa ñàkk man noonu laa ko gisee euh, loolu bokkul ci liy rafetal voilà suñu suñu démocratie naa bind juge bi ne ko na ma jox permis na fexe nag ba su ma ko bindee na ma tontu ne ma lii tax du ma la jox permis hmm. wala kaay jël sa permis benn ci ñoom ñaar kooku moom danaa ko def te na mu gën a gaawe parce que loolu droit wu détenu bi la ak sama droit wu citoyen noonu noonu la demee euh, voilà donc ci euh, ñu toll daal ci démocratie Sénégal bëri na ci dellu ginnaaw yoo xam ne yi ci jamono yi président Macky Sall amee surtout ci jamono yii ci mujjantal gi ci ci douze mois yii voilà wax naa sax sama ka assemblée nationale jotuma développé ba ñu génnee Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye Abdoulaye Wade génne leen assemblée nationale parce que dañu àndoon ak moom Macky Sall vidéo yaa ngi fii tege c'est du jamais vu kenn mës ta gis lii waaye ba mu toogee loolu la def tax nag mu génne parce que jot nañu nangu sax ma nekk député Euh, non inscrit non inscrit nangu nañ ko ah ba président assemblée bi dal di ko entériné nangu ko waaye xam naa nag bon saa yi ma jëlee kàddu <laughs> dana am lu mu lu mu lu mu ko déranger mais waru ko jëlee woon noonu politique nag sportif nag aussi ah da ngay nangu sport la ah da nangu koy fair comme ci football. ña nga woon ca ah. parrainage ba sànq. Euh, waxagoo peut-être ñaata ngay collecté wala ñaata mooy sa objectif. mais non am lu ëpp cinquante. cinquante am nañu réserve bu toll nii bu ñu ne sa cinquante huit mille yi sax doublon la ñu indiwaat yeneen. cinquante mille kon yow problème parrainage. mënut a nekk amul tamit mënuma nekk ci réew mi ak voilà fonction yi ma fi occupé diriger aussi liste législative bi. Euh, bari naa aussi ay xaritu APR. Ah. Mm. ah oui ah, eh, kon am na ba tey ñu nekk boor bee. mais ah, ñoo fa ëpp. ñooñu ñoo fa xëy na dañ naan wee bu ma feeñee. Macky Sall yónnee non yónnee ma IGE. xam nga UG ci maire yi dafa gaaw. waaw bu ko defee bon yow loolu it da nga leen koy nangul ñoo xam ne ñi xëy na seen post yi ci la ñuy dundal seen famille voilà mënuñoo dem waaye peut être ay xeet la ñuy doon da comprendre seen contrainte ak mm. sénégalais surtout yi nga xam ne bokkuñu fenn wala doon jàppale Macky Sall ko mm. bëri na ñu ko bàyyi voilà ndax lii troisième mandat bi. Euh, jur finalement ak yu ni mel ak ñoo xam ne sax dañuy jàpp ne bon mhm. say kàddu rafetlu nañ ko say xalaat pour Sénégal dinañ la jàppale donc amul amul difficulté euh, incha allahu rabi danañu am pare. xalaatoo tam conseil constitutionnel même si am na avancé parce que après dialogue bi am nañu benn commission contrôle des parrainages boo xam ne euh, partisan wala parti coalition yi dañuy yónnee ñu fay nekk conseil constitutionnel ak société civile bi yaakaar nga ne ak nouveauté boobu coowal parrainage comme 2019 duñ ko am. en tout cas dinañ ci xar suñu tànk tubéy en tant que fit dinañ xool sax ñun suñu biir ci biir bi nu ñuy fexee ba suñuy parrainage doublon yi ñu teel ko lijjanti bu ko defee <laughs> voilà euh, ay ay ay affaire voilà luubal lu fa mën a am yooyu yëpp aussi ci yu ñuy xalaat la ah. ci yu ñuy xalaat moo tax ma ne président Macky Sall li gën a yomb mooy bàyyil yoon ñu dox yoon voilà ku am say parrainage ñu ne la voilà demal jàkka jàngoog noddal Sénégalais yi déglu déglu sa programme Euh, ñu woteel mm. en connaissance de cause ki nga xam ne moom lañ bëgg mu jiite leen nga bañ cee tey kenn voilà ku ne nga bàyyi ko Ousmane Sonko mi bokk keneen bokk Aminata Touré bokk ma yaakaar nag ne man bu bu ñu noddee voilà danaa ci doon président la loolu am naa ci suma gëm-gëm voilà. Front pour l'inclusivité et la transparence des élections itam ñu ngi leen di soññi ci ñu laaj fichier bi yore ko xam effectivement ban fichier la ñuy demee élection lool tam dégguñu ci torop opposant yi wala candidat à la candidature yi waaw ñu ngi def suñu kéemtalaayu kàttan aussi soxna parce que nag liggéey bi dafa bëri yaa ngi ma tudd yaa ngi ma tuddal parrainage maa ngi ñëw di waxtaan ak sénégalais yi maa ngi tourner maa ngi yooyu wax wax nañ ko euh, voilà li nga xam ne moom la ñu war a poser euh, gouvernement bi wax nañ leen ko voilà dañuy continuer di ko laaj indi leen fichier bi ñu gis ko ñëpp jot ci parce que lañ defoon mooy dañ toog ay fan avant euh, élection yi ci la ñu joxe soog a joxe fichier bi. Hmm. la ñu xamul mooy fichier bi boo ko joxee nit ñi koy téye yor nañ ko mais surtout li ñu wax raw a te laajogoo ma ko. Hmm. mooy trois cent mille nouveaux inscrits nañ leen jox seen i carte. waaw ah. ñooñu sax dañoo amoon problème. non premier problème mu inscription. xam nga aussi souvent ñun actualité bi dañ koy topp nii rek actualité bu bees bi i fàtte yu am solo. d' abord mu ñëwee ci parrainage. avant may ñëwaat ci loolu. lañu ne bëreet rek ñu ne ko am carte d'identité rek ñëwal jël sa fiche de parrainage sauf Ousmane Sonko noonu la demee mënoon nañu am sax dix mille candidats en fait loolu yëpp pour indi confusion la woon bu ñu ne woon déposer sa caution ni ñu ko laajee tey ensuite ñëwal jël sa fiche de parrainage xam nga kon doo am deux cent soixante mais noonu lañ ko buggee woon pour lëndëmal mais la ca ëpp sax la ca na a mooy bi ñu joxee ñëpp seen fiche ba muy deux cent soixante ñu ne minimum parrainage bi nga war indi mooy quarante quatre mille ba cinquante huit mais jëlal sept million d' inscrits divisé ko par deux cent soixante yi jël seen fiche ñaata la vingt quatre mille ça veut dire sénégalais euh, candidat bu ne ci deux cent soixante yi bu ñu demee ci parrainage citoyen bi kenn mën a la matale vingt quatre mille nga ba ay ay doublon ngeen di yóbbu voilà vingt quatre mille nga yóbbu bu ku nekk defee sa liggéey sax ni nga ko mën a defee sénégalais yi ñuy laaj ne ah man parrainé naa fii mënatuma parrainé keneen muy doublon doublon yi du am ku ci nekk mënoo am quarante quatre mille vingt quatre mille ngay am bu doon yeneen dëkk yi mais dañu naan lo décret bi est annulé parce que n'est pas applicable kenn mënu ko appliquer déjà looloo ngi noonu tege kenn waxu ci de inscription yi ma doon wax avant année euh, euh, euh, chaque année dafay am lu ñu tuddee révision ordinaire chaque année maanaam ñi nga xam ne am nañ dix huit ans ñu bind leen ci bi année avant deux mille élection bi at bi ko jiitu président Macky Sall ubbiwul instruction. amul révision. non yoon ne bu ñu duggee ana élection day am révision exceptionnelle mu ubbi ko pour vingt huit jours. yéen journaliste yi loolu yëpp waroon ngeen teewa. mais yooyu itam dialogue daan tax muy gudd da ngeen daan dialogue ba déggoo ci ne. dañ ko war a yokk non loolu loi la. bi dafa ne chaque année am na révision. révision ordinaire waaw. année ba ca topp mën ngaa am révision exceptionnelle. waaw ah, bu élection amee ñaar ña ngay boole ba élection amee vingt huit jours la ko mais xam nañ lu tax bëgg lool xale yi inscrire xale yi xale yi <laughs> man dañuy voté contre xale yi faral <laughs> voilà xale yi dañuy voté contre moo tax bi may wax ma ne ko moom muy dem na jubóog jeunesse am voilà waxtaan ak ñoom ne leen waaw xëy na waroon naa leen euh, gën a mën a ci waxtaan hmm. maa ngi leen di massawu ci ñii nga xam ne loru nañ ci géej gi mu jaale leen euh, parce que nag ay doomam la ñu ah naan père de la nation moom mat na leen ñoom ñëpp donc yooyu it euh, ci la euh, ci la ci la ci la war a ne ci sama gis-gis waaye nag fit mu ngi def li mu mën a ah, ñu ngi def lépp lu ñu man ñu ngi ciy góorgóor ci candidature nekk aussi ci organisation euh, voilà fexe ba organisation yi élection yi jaar yoon transparent yaakaar nga ma transparence élection yu leer man jàpp naa ne sa xel teeyul ci ki koy organiser Sidiki Kaba par ah, exemple wax am nañu wax naa waaye am na lu mu mënul bu fekkoon ne lu ñuy mën lu ñu mën rek def ko kon président Macky Sall mooy nekk voilà ñu bëri fi ñoom jàppoon nañ ne président lu mu bëgg mooy am man ci sama wàllu bopp am na ñu ñëw wax ma ne lii ngay def nii soriwul xaru man leen mais yàlla rek a fi nekk fu mujj teg troisième mandat bi ci suuf donc am na fu seen doole yeegut ñoom loolu aussi war nañ ko xam bu baax a baax a baax donc la nga xam ne moom laa leen ciy conseillé dégg naa Sidiki Kaba ci boppam naan les les élections euh, fàttaliku leen ne ministre bi fi ñëwoon organiser élection yi PDS la bokkoon te dafa perte looloo koy dal moom waaw moom day bokk APR organiser élection ñu door APR loolu yëpp kon moom mën a gisaane la alors suñu delluwaatoon ci poste yi nga occupé fonction yi nga occupé premier ministre président conseil économique social et environnemental ak yeneen ak yeneen boo ko doon natt sa jaar-jaar foofu lan nga ci euh, jàpp ah mais def naa d'abord yàquma xaalisu lañ yàquma lañ liggéey bañ ma dénk ah. kenn poursuivre ma je ne suis pas poursuivi par la clameur publique maanaam euh, kenn toppewu ma euh, voilà loo xam ne lii day gàkkal euh, sama ngor man loolu laa njëkk a benn ñaareel ba def naa ci ay propositions yu am solo ba ma nekke ministre de la justice quand même defe naa ne loolu surtout waa diaspora dinañ ma ko nangul bu ñu changé la loi sur la nationalité bi fi nekkoon depuis 1960 maanaam boo doon sénégalaise sëyëg ku dul sénégalais sa borom kër nekkut sénégalais bu ngeen juree doom doom ja du nekk sénégalais waaye bu dee ku góor doon sénégalais bu amee soxna soo xam ne bokk do doomu Sénégal doom jarey doon sénégalais loolu discrimination mënu ko weesu amoon sénégalaises yu baree baree bare dañ yor seen doom du am nationalité imaginer nag bu fekkee ne da ngaa tas ak doo papa ja xale ba day doon apatride mais loolu dañ doom a ñëwee changé naa def naa ne loolu it avancement la bu boo xam ne indi nañ ko euh, bi ma nekkee premier ministre man maa démarré ci bëri ci Euh, wàllu inondation dans la banlieue def naa ne yëf yi wàññeeku na bu baax quand même euh, donte onze mois rek la fa la laa fa euh, conseil économique et social def nañ ci session yu bare bare bare bare bare bare sur des jeunes yu bare maa ëpp ci lu ma def ci ay session ci diir bu gàtt gàtt parce que un an cinq mois laa fa def parce man dama gëm liggéey man gëmuma nga jox ma poste ma toog di fayeeku alal boobu du leew man loo ma jox danaa ci xar suma tànk tubéy ah am na ay manquement toujours ndax nit ko doomu aadama rek la voilà euh, mais en tout cas ci suma wàllu intention ci sama wàllu engagement loolu je suis pas prise à défaut maanaam kenn du ma ci xeeb voilà alors